di ñaanal moom Cheikh Mouhamadou Mountakha sama borom yàlla yàggal ko te wéral ko waaye ñaan gu mel na ñu ngi koy ñaanal Serigne Amdi Fall mu Serigne Modou Mbenda mu yàgg jotaay bu maam Cheikh Ibrahima Fall bi waaye ñu ngi ñaanal sunu jàmbaar ja Cheikh Sirif Abdourahmane Fall Tall Xaadimul Xadim ngërëm ak ay leer di ñaanal taawam bu baax bii di Sirif Abdoul Aziz sama borom yàlla gën ko yàggal ci jotaay bi mu nekk fi moo ak rakkam yëpp ak taalibeem yi tey jii nag ñu ñëwoon fii ci kër Serigne Bassirou mu Serigne Abdou Khader doon ko siyaari si ndax moom li mu doon ci sëñ bi dafa bari Euh, maamam la di sëriñam ñu am kóllëre bu yàgg ndax kóllëre ga mooy sëñ Abdou Khadir mi nga xamante ni mooy waajuram moo doon moo njëkk a jël responsabilité ni Sérif Abdourahmane Fall Tilala maay samaam fii maay samaam fañ jëm loolu doon sabab bu rëy boo xamante ni turu Tilaaliya gii nga xamante ni moom lañ toftal ci turu sëriñ bi loolu moo ko sabab ndax moom moo ko wax ci làmmiñam moo ko ni sa tur bi nañ ci boole Tilala bu ko defee waa kaw xam bokk muy ànd bu yàgg-yàgg boo xamante ni loolooy sababu sëñ bi mu fi ñëwee tey xam ne ñëw na ci këram ñëw ci kër wuy juram mu àndanteeg rakkam yu baax yi nga xamante ne ñoom ngeen gis muy ku mel ni sëriñ Saliou Fall ak sëriñ seexu naa Fall ak Cheikh Moutada mi ci sama wet ak sëriñ Fallou ak sëñ Touba Fall mii ak sëñ Youssoufa Fall seen rak ñu ñëw ànd ak ñun ñii jëwriñ seex Ndiaye ak euh, man seen taalibe bi nga xam bu xeebu bi ak sëñ Xaadim Fall Baye Fall sëñ Saliou ñun ñi nag ñoo ànd ànd boo boo xamante ni dañoo ñëw gunge sëñ bi mu ñëw ci kër wuy juróom wi ci yoonu murit xam nga dafa am ay taxawaay yu ci nekk yu baree baree bari sëñ bas woolu ko ci waxtaan ñu war waxtaane loolu mooy sabab bu suñuy tànk ñoo ngi jaar ci yéen nag di nuyu ñëpp di leen siyaar bu baax yéen di ñaan seen euh, li nga xamante ni mooy sit internet bi ngeen nekkee sama borom yàlla dafa leen ci tawféex ba fépp fu ñu dégg télé bu mag rek ñu dégg leen fa loolu moo doon tànk yi loolu moo doon sabab bi ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp te ñaan réew mi jàmm sëñ Abdou Aziz daal mi ngi ñaan réew mi yàlla na fi sama borom yàlla def jàmm mais ngi ñaanal euh, sëriñam bu baax bi di Cheikh Mouhamadou Mountakha sama borom yàlla gën ko fee yàggal kon loolu moo doon kaddu yi ñoo ngi leen di siyaar bu baax di jéglu asalaamualeykum wa rahmatullah waaw jërëjëf euh, ñoo ngi leen di nuyu bu baax yéen waa taw Tawfekh Production ci turu sëñ bu so ñi nga xam ne euh, moo ñëw tey seet si sëriñ nag di mbokkam ci deret ndax euh, xam ngeen ni ku tudd Mbusoobe tudd sëriñ Abdou Khadre tudd sëriñ Bass Abdou Khadre te moom nii mën nañoo wax ni sëriñ Mbusoobe maamam sëriñ Tubaay maamam ñu ñu bokk li ñu bokk waaye nag mu xam cër boobu nga xam ni tamit moom la ko sëriñ bi jox muy kàddu yoon wi sëriñ bi di xaritam di léppam mu ñëwoon tey di ko yëgal bis nga xam ne mooy bisub 31 décembre bi muy def ci Mbambilor ak li ko wër nga xam ne mbooleem koy njabootug sëriñ Touba rek te nekk ci dund woowu li ko wër yaa ngi koy waaj ànd koog moom euh, ngir taxawaay bi nga xam ne am na ko foofu ànd koog njabootug sëriñ Touba gi ak taalibe yi ak dëkkandoo yoo fa nga xam ne bi ñuy lim sët yi nga xam ni ñu gi ci yoon wi di dundal yoon wi dañoo dañ ko dañ ko tuddaale te loolu day ab cër boo xam ni sëriñ bi da leen a tuddoon suriyatan tayyibatan tu jaddidu nax ju nabiyul Mustafa teg tax ju waxab la naa suriyatan tuddi mu alxamala saaliha yaa xadim kon sët yooyu nga xam ne sëriñ bi da leen a tuddoon ngir ñuy mottali liggéeyam bi nga xam ne euh, du dog ba ilaa yawmi diini moom da cee bokk muy sëñ Mamour buso di jëmm ju baax bis boobu nag di bisub 31 décembre bis bu mag la boo xam ne Mbambilor amuñu bis bu ko ëpp sëñ bi di ko ànd ak ñëpp njabootu Mbusoobe gépp ak Mbàkke gépp waaye nag ak mboolem tarixa bu ne ci réew mi ndax e, sëriñ bi bi mu ñëwee wootewul tarixa aw yoon la woote te yoon woowu ñi baax ñëpp ci lañ bokk moo xam nga xam ko wala nga ñàkk koo xam moo tax sëriñ bi e, wirdi yëpp sëriñ bi yoroon na ko ba jël maquus nga xam ni wirdi yëpp dañoo dajewaat ci moom loolu moo tax ba bi mu ñëwee man nga ni tarixa tiijaan boo ko tuddee sama xel si si Ahmad Tiijaan lay dem tarixa xaadar noonu salsal yu noonu dabaax wala bu mu mën a doon waaye muri muridulaahi foo ci déggee lu jëm ci suñ tubaa amul yoon wi jëm ci suñu borom la wax kon bi mu ñëwee dafa ëmb ñëpp loolee nag moom la sëriñ bi xam ba tax muy doxee noonu ba mbooleem kuy bokk ci tarixa wala nga diina ñor la wala lu baax da nga koo ànd ak moom kon bis la boo xam ni euh, mi ngi koy waaj euh, di ci woo ñëpp ndax bisub sant sëriñ bi la bisub fàttaliku sëriñ bi la bisub wane liggéeyub sëriñ bi la bis la boo xam ne daal euh, ku fa ñëw da nga xam taxawaay bi nga xamante ni njabatu sëriñ Tuubaa gi am nañ ko foofu waaye liggéeyub sëriñ Tuubaa bi nga xam ne tamit ñoom ñii ñu nga ci ànd di ko xam naa ci gàttal rek loolu lañ ñëwoon rek nan ko ci mën naa gën a gudd sax waaye comme comme lu ñuy lu ñuy kii la rek ñu ngi koy jégalu bu baax a baax jërëjëf jërëjëf. waaw man maay maa ngi tudd soxna Oumou Kalsoum si waaw ñun de ñu ngi tudd suñu koom Ouest Foire di GIE bu nekk fii ci cité Ouest Foire yàlla boo leen def ñu dëkk ak sëñ Bass Abdou Khadre muy suñu dëkkandoo ñu kontaan ci lool ndax nag yonent bi sallallahu alayhi wa day wax ne nit mën na tànn ay xaritam nit mën na tànn ay àndandoowam waaye yàlla mooy tànn mbokk mooy tànn dëkkandoo ñun nag moo ñu boole fii mu nekk suñu dëkkandoo ci Ouest Foire ñu dajaloo nekk ay jigéen di yëngu di xool lu ñu yokk tudde suñu GIE bi sunu koom Ouest Foire moo taxoon tey ñu ñëw ziar si sëñ bi. waa koom yëngu. ci affaire développement li ñu naan femme développement dañuy def transformation dañuy def eau de javel dañuy def savon dañuy def madaar dañuy def fruits et légumes dañuy def ay formation lépp yëpp foofu lañ koy defee ci siège bi. siège bi fii la nekk ci Ouest Foire demuñu ni dara ku ñuy formé it fii lay ñëw formé ñu ñu jigéen ñi ñu jariñoo. ndax waaw suñu première production nag def nañu 300 def nañu 300 bouteilles macha allah savon bi aussi defar nañ ci lu baree bari def nañu au moins ay ay cent et quelques mais dafa gaaw a jeex taxawul ndax ñëpp gis nañ ne vraiment qualité la.